daleen ak jàmm ginnaaw mbay peex Selbé Ndom moom it gendarmerie section de recherche woolu woon nañ ko ginnaaw moom it bi mu doon wax ni coronavirus amul Sénégal. fii ci biir réewum Sénégal mu nekk doomu jàngoro boo xamante ne ca Chine lañ ko doon dégg mu fay faat ay doomi aadama tey mu daal di dugg si ci Sénégal ba am ay doomu aadama yoo xamante ne tëral leen fa ndege ni ñuy waxee ak sax juróom-benni cas feeñ na ca Touba yoo xamante ne testé nañ leen mu daal di positif doomu jàngoro boobu gisoon nga ko muy ñëw ci réewum Sénégal wala. xam nga kuy ragal ragalal pënd bi fi duggoon fan yee ma man moom laa gën ragal coronavirus xaw ma coronavirus ka xaw ma coronavirus man gëwuma ko ndax sénégalais derwee dëgër siburu ni mu daf ñuy dal ñu génn ci ak siburu ni mu méttee du mooy coronavirus rek mooy si siburu bi rek ah c'est vrai dañ ne daa mel ni siburu ah boo neeti soomu wàll déggoo yi bi ngeen dugg si maa ngi maa ngi naan tisoo ne leen ay mbaru coronavirus dafa ñëw <laughs> Sénégal daal man góomu fi coronavirus. chinois lekk jaan jaan ak dangaram dereti jaan nga jaal bopp bi rek daggu ko xamoo fu dangar ba toll ca moom nga ñëw baxal ko def ko supp wala nga def ko soos ginax poson la di ginax nga mën a jël jinax juy doog a juddu nga xam ne poson ba day foor def sa marinade sa bineegar rek yooyu jël sa ñaari bant képp ko capp ci yëy non mbot poison la di ñoom lu bon rek lañuy lekk xaj buy dundul maa gis ñu baxal ndox sotti ko ko di ko wësam comme ni ñuy defee mbaam xaj ba ne ñokket daw ma dama yërëm ma ay waaye nañu bàyyi loolu ñu lekk xar yaa ngi fi bëy yaa ngi fi nag yaa ngi fi mala yi nga xam ne baaxuñu poison kese la mën nga mën naa nekk di dugg ci yow benn tuuti tuuti tuuti tuuti ba nga dox rek mu ne la këpp man de loolu laa gëm Sénégal laa tànk lekk ñu jaan def ko mbaxal wala supp wala jinax yi ñu xotti biir bi rek Chine waaye am na si tax yoo xam ne sax duñu xotti biir buñ ko fees noonu lañ koy lekkee kaña ñu lekk mbaam ñu lekk ñun daal bàyyiwuñu dara. jiit jiit jiit jiit dañ ko def brochette jiit. xooli jiit bu la fettee day mel ni jaan bu la mat. ñoom xam nañ fan la dangaru jiit nekk. mais li ñu gis fii ci réewum senegal lekk ñuy jaan lekk ñu ay kaña lekk ñu ay jinax kom ni nga ko waxee te testé nañ leen. ci ay xarala yu yees ya nga xamante ni moom la ñu am ca institut Pasteur ginnaaw bi mu daal di génnee ne doomu jàngoro bi moo ngi fii ci réewum Sénégal ba tey Selbé nga taxaw daal yow gëmuloo ni coronavirus mu ngi ci biir Sénégal kon da jàpp ni état du Sénégal xanaa daf lay nax. jiit xam nga état du Sénégal ak seeni bopp Selbé Ndom ak boppam bu ñu deewee seeni pax man bu ma deewee sama pax am na plein droit ne xëy na si buru si buru bee fi bàyyiwul rek ndax bu changé sax nit ñi dañuy feebar. man de mënuma koo gëm man moom kenn mënta wax ba ma gëm ko buñ lekkee jaan daal lekk mm, jinax lekk muus lekk kaña lekk mboot mën naa am coronavirus bi luñ fi doon wax am na benn ébola Ebola luñ fi Ebola coowul Ebola da xanaa moo gën a for e, coowul coronavirus. Ebola ba. Ebola am na ñi sol ay mbubb Ebola dugg si na Sénégal am na benn pël la Fuuta mën naa dugg lu toll ni Sénégal ak ni mu toll ak habitants yi laal fi benn nit dong wàllewul keneen léegi nga dégg fan yi gis naa ñu ne am na ñu testé ñu ñu testé ñoo xam ne nañ ko kii coronavirus dem naag lu nekk nañ koy bind kenn ku nekk ni ko ni nga koy xalaata ba di ko bindee noonu rek am nañ ci yaakaar ma ne kenn ku nekk daal boo toppatoo sa bopp boo xëyee sang sa yaram ba mu set set gi la président digle la ngay toggee nga raxas ko ba mu set raxas ci cin sa biir bi nga jëm cee def lu set wicc sa yaram wi nga jëm koo bomb defar sa njaboot ménage sa kër def eau de hmm? am naa yaakaar di nga mucc man daal vraiment gëwuma ko na ma sénégalais baal nag waaye yàlla bu mu am sax ba daan tëgg principal fees dell ak roi ba de su boobaa ñu xam ne vétérinaire coronavirus am na fi li fi nekk nit ñi feebar nekk ci hôpital boo feebaree boo amul xaalis doo faju loolu moo raw coronavirus na ci président jóg di may hôpital yi garab yombaleen nit ñi paj mi looloo raw coronavirus ñu bàyyi coronavirus te uti eh, li ñu jël xaalis di ko investir nañ ko ubbi ay société xale yu góor yi chemin dugg ci liggéey bu liggéey bëree rek sàcc du am agression du am jigéen ñi duñu mën a taxawaalu loolu loolu yaakaar naa bu ko defoon dootuñu déggati coronavirus Sénégal man duma ko nangu Selbé Ndom ginnaaw vidéom bi sandarmay section de recherche daal di koy woo téléphone xamal ko ni ko convoqué nañ la moom it mu xamal leen ni dina leen wuy si ci ni mu gën a gaawee waaye nag ci ginnaaw bi mu mel ni Selbé respecté wut ay kàddoom ndax mujje wut wuy ji convocation bu njëkk bi nga xamante ni gendarme yi jox nañ ko mu mel ni rek Selbé Ndom moom làmmiñ waar rëy rek waaye ñemewut gendarme yi section de recherche yi ndax kat dañ ko doon woo waaye kenn mënu ko woon jot waaye mel na ni loolu taxul gendarme yi bàyyi ko benn yoon ndax mujjee nañ ko joxaat deuxième convocation waaye bi la yoon Selbé dem na wuy ji ci kanamu enquêteurs yi nag kat bi dal di weddiwaat li mu waxoon ba mu set wecc comme ni ko Abdoulaye Mbaye Peex defe woon ginnaaw bi nag ca la ko takk der yi daal di tegalaat vidéo bi mu doon waxee ni coronavirus amul ci Sénégal ginnaaw loolee nag lam ca teg moo di ab jéggalu te xamal gendarme yi ni kenn dootu ko dégg mu wax ñu ni mel lu dul lu jëm ci sensibilisation ci jàngoro yi coronavirus ji am ci biir réewum Sénégal ci noonee nag la ko gërëm mu mel ni rek Selbé Ndom def na ab wax waxet ba mu génnee nag section de recherche sortie bi mu njëkk a def moo di gaaruwaale ñi nga xamante ni dafa jàpp ni ay yàqkatu deram lañ euh, damay waxaat auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi gën a sant yàlla di ko sant di ko sant di ko sant bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gën a yéexal sama njébbal ci cheikhul xadim Mbàkke Balla Isa di nuyu sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fa teewal cheikhul xadim di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér du ma mës a fàtte sëñ Moustapha Sy asidiqu sama xarit sama wóllëre di wax waa àdduna bi ne leen alhamdulilahi rabbil alamin sant naa yàlla man Selbé santati naa yàlla santati yàlla santati yàlla julli ci yonent bi sangu sang yi sallallahu alayhi wa bàyyi Fatima toog Zeynab ak Ruqaya ak Umu ah di gën a sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin dem naa wuy ji ba ñibbisi alhamdulilahi rabbil alamin di wax ñi nga xam ne tey ñoo xëy di wax naan Selbé dafa daw waqet fay portable am billahi lazi laa ilaha illa man sénégalaise la fière d'être sénégalaise doonu patriote man aw fenn fudul Sénégal yaakaaruma fenn fudul Sénégal ci réewu Macky Sall mi nga xam ne Sall ngaari lam Euh, président bi nga xam ne mët na président am na fulla am na fayda nangu naa liggéey man du ma daw sëtu buur laa doon doomu séeréer am ay maami naar xoolal barke yonent bi wallahi wa ne sa tey kon ci def na ak yonent am naa jom am naa fit doomu séeréer laa di garmi ku samay maam gënul say maam say maam gënul samay maam daraje laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nañu bàyyi li ñuy def dawuma fayuma sama portable sama kër de laa fanaan ku ñëwoon digg ma fi fekk di sant nañ ñi nga xam ne sonn nañ ci man lool démb ba léegi ñu may woo dama wuyu téléphone ba dama waaru xanaa yàq sama der bi rek yàqal ma rekk bañ ma rek taman bañ kenn ma kullu doomu aadama rek pour man sama xarit nga du ngeen dégg ki dara lu bon waaye ñoom yàkkamti nañ rek am selbe nii indi selbe nii allahu akbar def leen ma ni ma yàlla def mu noppal leen su ngeen ma deful ni ma yàlla def mu jaaxal leen chaque jour ma jaaxal leen te asgor war na arus ñu koy joxoñ naan ko yow yow mi yaa def nangam yaa tooñ nangam am na nag lu may seet bugguma jaxasoo ak yéen bugguma benn benn lante ak yéen ndax lool ngeen tàmm benn benn lante boobu ngeen tàmm ngeen may ma suma jàmm ngir jëmmi yàlla ak yonent bi balaa ngeen maa waxal naan selbe dafa daw waqat tëj këram tëj portable am loolu yëpp ay neefare la da di neefare dara nekku ci dëgg dem naa nag wuy ji ba ñëw di gërëm commandant bi macha allah ku baax la waaw di gërëm sama président de la république te xam ne billaahi wallaahi watallaahi kenn gënuma laa bëgg dara gi Seydina Muhammad gisuma ku ma la gën a bëgg amut duma ko nangu xëy na nag awma ma walla am benn possibilité pour di dugg ci palais bu ma soññ chaque jour ma gis la yow li nga bëgg laa bëgg li nga bañ dama koy bañ ndax ba ma lay topp boobu doonagoo président ba may daw di ànd ak yow boobu doonagoo président may jaay say carte APR di ko renouveler di ko bind di jël filiation doomu aadama bi mu may jox ñaar fukki dërëm ma naan ko kii may doon président booba du tey kon du toog ba tey nga doon président de la république du Sénégal man Selbé Ndom ubbio maa du xee allahu akbar ma laan dama lay compte wala la nga wax dama koy teggi xaraamal naa ko billaahi wallaahi watallaahi loo bëgg loolu laay def loo bañ bañ naa ko wasalaam